dikkati naa lu def waxulu ay di njàmbat fi mu ne day parti réew mi bindoo tama ñu koy rukkee bu ne tribune yéene kaay naan maan Yankhoba Diattara moo indi coow li moom Diattara mi nga xam ne saa si tembe dafa def sukku jébbalu ci président Macky Sall Idrissa Seck mer ba futu daal di jël Yankhoba Diattara ronxi seppi ko ni karaw mu dugg ci poñse yemu ca de moom idi daqee Sall ngaari lam tooro buur gene ci présidentielle yi daal di ne faax sampum ndëndëm ki am fulla ma Macky Sall ak Idrissa Seck source a naan man balaa ngay ñëw ci idée candidature am bi tey nag laa lay nettali diggante Yankhoba Diattara ak Idrissa Seck lan moo ca xew xam nga moom ministre des sports dafa jéggi nag Idrissa Seck la mu waxoon waa partem ngir ñu def ko ndax keroog ci seenum ndaje moom Idrissa Seck daf ni leen bu kenn wax ci présidentielle 2024 bi tant que réew mi ci boppam defulab communication neg yees moom ndaamal kajoor ne leen it waxub troisième mandat bu ci kenn addu moom Idrissa Seck ne leen maa ngi ci waxtaan wu am solo sama digg ak Benno Bokk Yaakaar wi nag jeexagul na ñëpp def pat yéene kaay bi ne ma yang xooba nag dafa deful pat dafa génn wax ne président Macky mën na sampaat ndëndëm ci réew mi turbine yéene kaay ne dana métti ci moom wala ndax Idrissa Seck moom daal dinay suqi ay na ko Idrissa Seck dàqee na ko fa turbine yéene kaay mel ni ku naan ñoon bettuñu ci réew mi lu ni mel amoon na fi diggante Idrissa Seck ak Omar Gueye vox populi naan kon maa mën maa ëpp doole ma dàq nettali lii ma nga amoon ci septembre xam nga nag Idrissa Seck saa buy génn Benno Bokk Yaakaar faaw nag ci ñëm fa àndaloon dugg kenn des fa tey Yankhoba Diattara la waaye laataa moom Amar Gueye ak Pape defoon nañ ko idi tribune yéen kaay tey da Yankhoba Diattara moo dox ci seen tànk waa réew mi ci vox populi naan kon war na Idrissa Seck ndax lu mu am tey gannaaw yàlla Idrissa Seck moo ko may l'observateur naan maan fi ne day troisième mandat bi nag mi ngi jaxase langu politique gi daal dinay jaxase nag digg parti réew mi ña ngay rayante tribune naan maan rax ci doole yi jël ay poste nag naan sénégalais yi ndax nangu ngeen ma andil ba effacé waat booba l'info yéeni kaay naan man Sénégal nga moom boppam président Macky nag janook askanam def nag discours à la nation naan Sénégal moom na boppam nan teex teex ñuy ree bugaan géy dani ci l'indépendant yéeni kaay naan kon moom boppam ci nan Sénégal kay ma nga fas yéene tàmbalee moom boppam bés bi nga xam ne lii balee ci réew mi doomu réew mi gis ci seen bopp l'info yéeni kaay naan kon président Macky Sall nee na ko ñi ngi ci ay chantier fi ne ci réew mi kaw geeg réewum taax ñi ngi ci defar ko bugaan ci l'indépendant yéeni kaay naan kon moomagul boppam de bés bu ñu di dooleel sunu jàmbaar yi ci koom-koom gi Sénégal moom boppam président Macky Sall ci l'info yéene kaay naan kon ndaw yi xam naa nag seen yaakaar ak seen bëgg ëllëg gu ñoŋ te loolee nguur gi fàttewu ko bugaan ci l'indépendant naan kon Sénégal dina moom boppam bés bu nu jéggaaneetul suñu koom-koom président Macky Sall ci l'info yéene kaay naan kon nañu woote waxtaan ci réew mi xool nees def ba déggoo daal di ciy am bugaan ngay dani ci l'indépendant yéene kaay naan ko déet Sénégal dina moom boppam bës bu ñu demee ba njiitum réew mi xam war maay kàddu ak soloom Sall ci l'info yéen kaay naan kon benn famille lañ de benn bopp lan ko mën a xar ñaar bugaan naan kon duñu benn de bés yoon bàyyee jalgati Sénégal moom boppam El Hassan Sall ci turbine yéen kaay ci feetuk indépendance bi naan coow li coow li mooy li fi nekkoon jugu fi juróom benn fukki at ak ñetti la ñu ne Sénégal ci la moom boppam waaye fi mbiri tol ndax gis ngeenu coppite li fi tubaab bi bàyyi woon moo fi nekk ba tey képp kuy njiitum réew booy wax bitim réew ngay waxee dogal yi ñu ngi koy jëlee bitim réew daanaka sunu njiit yi dañoo jàppe Afrique gato goo xam ni dañu koy teg mu wex xàttak suukar ku ñëw daal pàccoo may ci say ñoñ El Assane naan kon indépendance su lan ngeen wax indépendance goo xam ne tey la réew mi gën a ndóol indépendance goo xam ne wér-gu-yaram gën doon sagoo bitim réew ak Afrique France daal dina yàqu demal ci l'hôpital yi tur waa fa nekk kenn joxatu leen gëdd ak cër indépendance boo xam ni l'école bi doon sagoo boppam ci Afrique jeex na gréew yi daal di koy nërmeel ñàkkub njàng mu ñoŋ am ci réew mi El Assane leen ban indépendance ngeen di wax ci Sénégal gisuma ko ndax li fi nekkoon moo fi nekk coppite amul nasaraan saa ngi wéy du ñu noot ba tey dogal bu am ci ci réew mi ñoo ko fi jël turbine yéen a kaay naan en tout cas moom président Macky Sall woote na jalo Walf Quotidien naan président Macky Sall def na discours waaye fàtte lu amal solo sénégalais yi muy coowal troisième mandat wàllu violence politique gi askan wi nga xam ne ñu di tuñ tuñee di leen nu ne Vox Populi naan man Ousmane Diagne de moom woonañ ko waaye nee na wuy jiwul tey wuy jiwul ëllëg loo xam ni politique dong ko lal critique yéen a boobu Sall naan président Macky Sall rax na ci dolli di wooteeg dialogue Alioune Tine Africa Jom Center naan kon président Macky Sall coow li du wooteeg dialogue rek de warta yem ci làmmiñ ñi mbir yi dafa war a gën a xóot Aminata Touré naan kon wooteeg jàmm ji ak dialogue bi naxee mbaay la te lii xaar ñu ko ci président Doudou Wade naan kon fi mu toll ni day Sall boo tëddee xamal ne diggante 2023 2024 lu xew ci réew mi yow la ko borom bi di laaj Seydou Gueye APR naan en tout cas Sénégal ñoo ko bokk dundanoo ci daal neex na nan wuy ji président Macky Sall Thierno bokkum ci 24 heures yéen a kaay naan kon ñu bëgg kay muy waxtaan ci réew mi mooy yow Sall nga ni doo présenté wu organiser ay élection yoo xam ne yu libre la senegal daal di avancé daal di talal Le Quotidien Le Quotidien naan man boobu day diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang jeexagul mbir yi daal ñu ngi koy def wàllu fast track léegi ngeen dégg nag ne appel bi jàpp nañum datam acte de jugement bi jébbale nañ ko altine gi recours bi daal dinañ koy def bés boobee yéen kaay bi naan man cour d'appel mi ngi saytu mbir yi fas yéen a jàpp dat bu gën a jege ngir nag ñu mën a àtte nu mu gën a gaawee Ousmane Sonko ak Mame libération yéen kaay naan maan boobu procureur ma ngay sàkku ñu daal di jàpp docteur Samir Boulos ak Mbagnick ngoom gannaaw bañ leen wooloo ñoom ñaar ñëpp dañu ne duñu wax ci wopp Ousmane Sonko parquet bi ni leen li ngeen def nag délit la ndax nag enquête criminelle mënuñ caa nekk ngeen di téyeel yoon loo xam ne mën naa leeral mbir yi yéen kaay bi naan maan docteur Ngom moom jàpp nañ ko altine ba tey lañ koy defeere docteur Boulos daal di yónnee certificat médical gars yi def descente ci biir cabinet am moom fas na yéene soobu ci grève ndax nee na jàpp gi ni jàpp fajkat yi ci réew mi fem ne du jàmm le soleil yéene kaay naan maan boobu day sunu force de défense et de sécurité yi ña ngay wane dëgg-dëgg seen doole ci réew mi di wane matériel yu yees pekk yoo xam ne maar day taali bés buñ ko génnee ci réew mi turbine yéene kaay daal di xëy sam poob laaj matériel yi nag mbaadu pour xupp ak faagaagal ak sonal Ousmane Sonko ak Pastef ba ku yëngooti ci réew mi daal ñu daal sa kaw direct news naan kon am na ci drone yoo xam ne dañuy toll fa leen saf di sànni ay lacrymogène Dakar Times naan ak lu mën am jàppale ni moom Sall day daal dinay lancer message daal di janoog askanuk Sénégal naan leen fi mu ne jàmm la ñu bëgg ci réew mi dal ak stabilité la ñu bëgg ci réew mi te daañu def kéemtalaay kattan ba réewum gi gii jàmm ak dal daal di koy lal benn fitna ak lu ñaaw du fi am l'enquête quotidien naan kon bul fàtte sall naan sa digganteeg sa Seck fi mu ne day xajam na mburoog soo mi mbaadu nag dafay bëgg fuur bés bi le jour naan kon yéen sénégalais bu leen fàtte ni diggante idée président Macky Sall ànd ak tàggoo moom yàgg nañ ci boobu dee kanar a gàddaay réew mi mbaadu wàlli bàllaago Seck tribune yéen a kaay jox kàddu faramaareen bi mu def entretien bu rëy rëy ci biir yéen a kaay bi moom Wally Ballago Seck naan ma dem dund ji Europe ndax nag Sénégal dund naa fi lu metti loo xam ne gëm naa ne artiste musu koo dund ci réew mi man Wally day référence la moo tax nag may positif rek doxal ballaa Ballago ci yéene kaay bi naan sama papa manqué na ma naan la may dund ci injustice ci réew mi bari na la ma dund ci naqar ak métti ju tegloo bari na waaye nag ba fii maa ngi sant yàlla ndax nag maa ngi ci yoon bu baax te di jubal di jubalit boole koog di leeral ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm démb lañ doon màggal juróom-benn fukk ak ñetteeli yoon bi suñu réew moomee boppam ba léegi wante laata loolu ci ñetti fan ci weexu avril njiitu réewum Sénégal di Macky Sall mi ngi doon jàkkaarloog ak askan wi ci ab discours goo xam ne daf leen koy jagleel saa bu ñu yegsee ci bés boobu wanteew colikaay bii di Sud Quotidien moom de la mu nemmeeku ci wàllu discours boobu de moom mooy ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom mi nga xam ne ñoo ngi ko doon xaar ci ay question politique yi nga xam ne fi mu nekk nekk nii moom mooy ay di jàmbat Macky da cee teg tànkam waxu ci lenn njiitu réew mi kon waxul ci wàllu ñetteeli candidature bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee ne daf koo bëgg amal waxul nag ci Karim Wade ak Khalifa Sall mi nga xam ne daf leen digoon ne dinañu leen jox li ñuy tuddee amnistie waxul it ci jafe yu tar yi nga xam ne dañu ko nemmeeku ci wàllu politique ak arrestation yu bëri yi nga xam ne moom moo am rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci l'opposition bi te jege kii di maire bu diwaanu Ziguinchor te mu jiite parti bi di Pastef di Ousmane Sonko ucolikaay bii di si quotidien ne bëri na nag ñi nga xam ne ñu ngi doon xaan di réew mi daal di yey yàbbi jëmale ko ci wàllu gini mel wante Macky de waxu dara li mel ñi nga xam ne kon dañuy yëngatu ci wàllu politique daal dinañu koy naqarloo ko ci mel ni du Wade moom mi nga xam ne kon jokkoon na ak suñu natango yoocolikaay bii di Sud FM te waa Sud Quotidien tey jii daal di xëy daal di koy fësal moom ma ngay wax jiitu réew mi ne na xool ci yàlla ci lépp lu muy def ndaxte dina mës a jàkkaarloo ak moom naka la yore woon réew mi Aminata Touré moom mi fi nekkoon joriñ gu njëkk te nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal moom la mu gis moom mooy ne njiitu réew mi dafa daal di woote wante gëm na ne loolu moom ab woote gu mu daal di sànni la nii rek wante xelam ak xolam sax buggul ñu daal di def li ni mel Aminata Touré di ci yokk di xamle na la leen yitteel moom mooy na Macky respecté li nga xam ne kon moom mooy constitution bi daal di wax ne du nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci biir jolikaay bi di l'info naataango yi tamit ña euh, yoo xam ne ña ngi ko doon xaar njiitu mi wante de moom daf cee jàll ne Macky kay uculikaay bii di l'info moom mi ngi ñuy xamal ne daal dinay jukki jëmale ko nag ci réalisation yi mu fi jot a amal ak lan la jot a def jëmale ko ci xëyu ndaw yi ak ñi nga xam ne it ñoom ñooy jigéen yi ci bés bi nga xam ne kon ñu ngi ci doon màggal suñu indépendance uculikaay bii di Le Soleil di ñëwaat ci wàllu défilé bi défilé bu mucc ayib goo xam ne sax njiitu réew mi li ni mel it moom la daal gis ba muy yëkkati ay kàddoom ginnaaw ba défilé bi jeexee moom mu daal di xamle sax ne dina def kéemtalaay kàttanam ba bépp jumtukaay goo xam ne suñu takk der yi dañu ko soxla mu jox leen ko ci ni mu waree dawul coow boo colikaay bi di direct news nekkoon démb le Sénégal doon màggal juróom-benn fukk ak ñetteeli yoon bi nga xam ne daal dina ñuy am suñu indépendance mu nekk ab gës boo xam ne njiitu réew mi def cee profito ngir daal di wone doole ñi nga xam ne kon ñoom ñooy suñu njeexndeel ne Macky démb daal dinay wax kon ñii di sénégalais yi bu leen neexee ngeen nelaw ba yandoor ndaxte lépp lu jublu ci wàllu kaaraange am na fi te moom sax dina ko gën a ful autolikaay bi di l'observateur tamit di ñëwaat ci wàllu défilé bu am solo défilé bi mucc ayib bi nga xam ne kon démb daal dinañ ko fi nemmeeku défilé goo xam ne kon ñi bokk ci l'opposition bi kenn teewewu fa autolikaay bii di critique di ko naqarlu ndaxte ñoom lañu ñu gëm ne même su fekkente ne sax xëccoo bu tar am na ci diggante ñi nekk ci nguur gi ak ñi bokk ci l'opposition bi waru woon tax nag ñu boycotté daal di dëddu lépp lu jublu euh, ci wàllu feetub indépendance ndaxte loolu moom askanu réewum Sénégal yëpp ñoom ñoo ko moom ci waxtu yooyu nga xam ne kon ñu ngi ci doon euh, màggal suñu wàllu indépendance défilé bu am solo di am fële nga xam ne moom mooy euh, ca place de la nation waxtu boobu la Idrissa Seck daal di profito jëlee ki nga xam ne kon moom mooy Yankhoba Diattara ca poste ga mu ko dénkoon ci biir parti bii di réew mi jolikaay bi di tribune ne kon ki nga xam ne moom mooy ba Diattara kàddu yi nga xam ne def ko fësaloon ca seen TV doon jàppale Macky Sall ci wàllu ñetteeli candidature am loolu de moom moo tax nag ba Idrissa Seck daal di mer jëlee ko ca poste ga mu nekkoon ci biir parti bi di réew mi nekkoon mun nañu wax ne ci diggante Idrissa Seck ak Yankhoba Diattara sëy ba amoon foofu de tas na tasaar wante suñu natango yi ñoom la ñu gëm moom mooy ne du kàddu yi nga xam ne moom la Yankhoba Diattara fësal de moom moo tax ba Idi daal di ko fay dàq li tax xuloo daal di am ci seen diggante moom mooy ne njiitu réew mi dafa daal di jébbal ci fukki xëy ay ndaw yoo xam ne dañoo bokkoon ci biir parti réew mi di ŋàññ parti boobu nag la ñu ko jébbal suñu naatangoo yojolikaay bii di yor yor bi nee nañu loolu nag moom moo indi divorce bi jeexale ko wàllu tàggat yaram tey ji la amal coupe du roi demi-finale retour bi fële nga xam ne moom mooy ca Camp Nou lañ ko fas yéene amal yojolikaay bii di stade di ñu xamal ne classico bi nar a am ci diggante Barça ak Real ne bi may juróomeel ak gi nga xam ne dinañu ko nemmeeku ci saison bi yi ñi nga xam ne ñoom ñooy catalan yi ñoom ñoo ci amoon ndam ci wàllu lamb coolikaay bii di lamb tey ji jox na kàddu Gris Bordeaux moom ma nga yëkkati kàddu yooyu sax di ko teg ci ndodd ki nga xam ne de moom mooy Ama Baldé Gris di xamle ne Ama daf ko ragal ndax sax daf ko bëgg a jéggi ngir dem daje ak ki nga xam ne kon moom mooy Modou Lo Gris Bordeaux yemul foofu ndaxte tamit jukki na jëmale ko ci ki nga xam ne itam moom mooy Ada Fass lii moo nekkoon wax dilukat yi li na a si biir coolikaay yi ñu leen di ñaanal te lu bës ak jom Modou Mouhamed woon démb ak discours à la nation bu président bi woon bërki démbu ci diggante boobee la journal yi xëy taxaw ñu taxaw ci soleil national mi xëy taxawal ci xëtamu njëkk photo bu président national taxaweetu dend ak njiital l'armée Sénégal journal bi dañu xamale loolee démbu la woon ci place de la nation ba ñuy màggal juróom-benn fukkeer ak ñetteelu anniversaire indépendance Sénégal soleil national ne ñu màggal nañu ko ci anam wu màgg wane fa lu am solo wax lu am solo la sinikaay nañu suñu réew Sénégal doole ji moom ci wàllu ngànnaay moom la doon wane démb journal bi boole ko kàddu yi njiit réew mi Macky wax ne suñu force de défense sécurité yi am nañu ay mat matuwaay yu mat sëkk yu leen mën a may ñu waggar ci kaaraangeeg jàmmi réew mi direct news nañ li ñu gis ci feetu indépendance bi woon démb wane na ne Sénégal am na matuwaay ngir mën a jàmmaarlu ak bépp danger ak bépp menace fu mu mën a jóge nag li na démb ca place de la nation le témoigne mi ngi ñuy xamal ne ay matériel de guerre yu yees lañu Les Échos moom li mu gis mooy Macky Sall moo doon wane démb dooleem xeetu ngànnaay bu nekk xeetu matériel bu nekk Les Échos mi ngi génn na ci défilé démb bi ay drone yu mën a toll ci kaw gis nañu ko démb feetuk indépendance su démb gi l'observateur ci ñaari kàddu la ko tënk mu di ay défi yu mag a mag ak défilé bu toj li ñu naan puissance de feu mu di dooley defante l'observateur nee mu ci am l'observateur dellu si waate ci message à la nation bi njiitu réew mi Macky Sall muy waxtaane ak spécialiste l'info nañu président ko defee waat ci discours à la nation ba dellu si waat na ci li mu liggéey ci réew mi mu di ay xëy na di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba bind ne Macky nee ubbeeku na ngir waxtaan Alioune Tine Aminata Touré Doudou Wade ak Seydou Gueye ku ci nekk ci ñoom ñi ngi wax ci Sud Quotidien ni mu jàngatee message à la nation bu njiit réew mi njiit réew mi Macky Sall ak njiital réew mi di Idrissa Seck ñoom ñaar ñoo nekk ci xët mu njëkk journal bés bi le jour ak duel mooy mi neewoon vice réew mi ngi ñuy xibaar ne Idrissa Seck wàcce na ko li mu yëkkati woon kàddoom doon défendre troisième candidature bu Macky Sall loolee bokk na ci li tax Idrissa réew tribune gis na Yankoba Diattara li mu jébbalu ci Macky Sall ba ko doon défendral troisième candidature bi moo tax maara wàcce ko moom Idrissa Seck tribune nee nañu génnee na Macky Sall ci course bi ngir élection présidentielle yu 2024 yi annoncé it candidature am enquête dina kay ne ko bu ko waxul ñëpp di ko dégg it aw doxinam ak aw doxalinam li muy wane mooy moom Idrissa Seck candidat lay doon ci élection présidentielle yu 2024 yi ne dem na ba naan li fi amoon ci diggante Idrissa Seck ak Omar Gueye fukki at ci ginnaaw Vox Populi nee nañu Yankhoba Diattara loolee ko nar a dal ñu dalee ci libération mi xëy di ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne lu jëm ba tey ci enquête bi ñuy def jëm ci entrée gi Ousmane Sonko entrée woon ci clinique suma assistance procureur bi santaane na ñu teg loxo docteur Samir Boulos ak docteur Mbagnick Ngom nappkati Kayaar yeeg nappkati Mboro yi jàppante bi doxoon ci seen diggante journal Tribune nee nañu jurul jàmm ne lu ëpp téeméeri doomi aadama jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ci ñoom am na ci ndax dañu leen a sotti pétrole taal leen am na it yeneen xam ne yéenekaay bi na nañu ba fi mu nekk nii kenn xamul fu ñu nekk CCPE